tey bu ñu waxee magal Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba àdduna warngal kàpp tey tey wuyu si Serigne Touba ba ñu koy màggale fépp ci àdduna kon mbir mi xëyul xëy rek nooy déedéet xëyul xëy rek yomb déedéet am na fu Serigne Touba jaar am na lu mu dund ci diggantam mag boromam ba yàlla jaarale ko nattu bari tubaab tey. ñoo jàpp Serigne Touba jàppee ko maanaam ki nga xamante na prisonnier mu ne moom du prisonnier waaye ab jaam la boo xamante ne day liggéeyal boromam kon lu waral loolu mu waxee ko noonu moom seriñ Touba dafa gindeeku ci yàlla xam ne kat la mu bëgg ëllëg noo foog mu liggéeyal yàlla te amul feneen fu mu ko mën a liggéeyale fudul ci jaamu yàlla yi kon liggéey nag buñ ko waxee ca yàlla. mooy jaam yi nga xamante ne dañoo reeree laa ilaha illallah te laa ilaha illallah rek moom moo tax xam ndax dara ne ko fi lu dul laa ilaha illallah kon nag bu ñu gisee tey jaam ñi bari di daw di réer di wuti Touba te bari na ñi nga xamante na lesi laa ilaha illallah ñu ngi topp ci réer mi mais xamuñu lu xew kon lu góor yàlla bi wax léegi bari na maanaam ku rombo bitik dem ci beneen bitik tey li ngay wuti ci beneen bitik bi maanaam mu ngi ci boutique bi waaye na xëy na kay jaay ci boutique bi moo la neexul ba tax na nga jéggi boutique boobu dem feneen kon nag Cheikh Mouhamadou Alamine Gueye mun na yox maanaam dafa bokk ci boutique sunu borom yi dafa yore leeru laa ilaha illallah ndax lépp lu waaye di mun a jaay ci kaw suuf te amoo leeru laa ilaha illallah bu ëllëgee boo jaayee njaay moomu du la amal njëriñ waaye boo ko jëndee njënd boobu du la amal njëriñ kon dañuy gën a déggalaat rek la nga xamante moom la Cheikh Mouhamad Al Amin ngay joxe moom la Serigne tuuba joxe moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe moom la gaa yi yàlla yu baax yépp joxe waaye nag lu ci am solo mooy li ma wax sànq maanaam nangu ndogalu sunu borom ndax jamono ju nekk sunu borom mooy tànn kenn ci jaamam ñi jël nga ngëneelam def ko ci moom mu ne ñamu jamonoonteel ah jublu leen jëmm jee ndax la mu yor mooy kenn ku ci nekk lu tax nga wàcc ci kaw suuf mooy yàlla sunu borom te sunu borom dafa ne balaa ngeen way jaamu na ngeen ma xam te nag bu ñu gisee ki nga xamante amaana tey bu ñu ñëwee ci keppaaram jaayante ak moom lay tax ëllëg sunu borom moom lay nangu amee na ko kon boo bëggee noppalu nangulul kooku ngir jëmmi sunu borom rek a tax nga bañ a gis melo nga bañ a gis askan nga bañ a gis dëkkuwaay mais gisal yàlla sunu borom ca moom kon nag Cheikh Mouhamad Lamine Gueye la mu joxe lesi laa ilaha illa allahu moom laa wax sànq maanaam moom la Serigne Touba joxe Serigne Touba mii nga xamante ne tey moo waral màggal gi ndax nitu yàlla bi amee leeru laa ilaha illa allah kon dangaa war a dëggal nitu yàlla yi fi nekkoon kon Cheikh Mouhamad Lamine Gueye kon day dëggal woote Cheikh Ahmadou Bamba xam ne kat Cheikh Ahmadou Bamba la mu yoroon moom la yor ndax Cheikh Ahmadou Bamba kat na Limaamu Laay na góor yàlla yi nga xamante ne ñoo ko jiitu woon ndax kenn du xam yàlla sa morom xamoon yàlla ba noppi nga naan nga di ko weddi déedéet amul benn yàlla yàlla boo xamante ne tey dafa nekk fii senegal di weddi beneen nit yàlla bi xam yàlla déedéet kon bu ñu waxee yàlla yàlla yàlla yàlla c'est universel gis kon yàlla yàlla dafa doon mbir moo xamante ne mbir mu yaatu la amul frontière mbir moo xamante ñëpp dañ cee xaj kon xaj buñ cee xaj nag moo waral tey ndaje yi nii di am jamono ju nekk li ñuy wax rek jamono ju nekk maanaam mooy jaamu yàlla yi nañu fexee dëppuwaat xam ne kat lan moo la indi daara duniyaa mooy xam yàlla te war koo jaamu ndax buñ gisee jamono tey fu jamono toll bëggante amul nangulante amul wóoluwante amul warante moo bari ci jamono te képp koo doo jullit mu attan rayante ak yow kon jullit ak jullikat est-ce la ndax bari na koo xamante ne tey jii boo laalee sëriñam tey mu attan jox la bakkanam te ki moy wax ne mooy sëriñam la sëriñ war a def ci taalibe defu ko ci moom tey boo ko doon leeralal di ko wax dëgg ji nga xamante moom la sunu borom dogal sëriñ ak taalibe ñu war koo àndee maanaam ñi jàppee la noonu ñu ne la da ngay diingat ma la da ngay weddi sëriñ bi te pra yow bu dee yàlla kenn la te xam nañu dara nekku fi dul yàlla te yow nangu nga ne dara nekku fi dul yàlla te yàlla yàlla bu la ne yàlla dañ koy gis yàlla dañ koy xam mais werante warul mun a am wérante warul mëna am mais lan mo wara mëna am moy ñu tok waxtaan ndax buñ toogee waxtaan rek manam dëgg dina fein. ndax bo dé julit may julit té nga ne ma maag yow ñoo ci bokk yam te buñ ci bokk yam buñ ñu rek di nga xamné ne sama waji ya ma ci ma man maa ci te ëppale gi du lén na lu dul da nga réré mom mu xam mais bo xamul nangul ne xamoo boo xamul nangul ne xamoo te jëmmi yàlla rek a tax ndax moo lay may maanaam nga gindeeku nga xam fi ngay teg sa tànk fan la ndax nit bu ko yàlla sunu borom de bind wa maa xalaqtul jinne wal insi illaa liya'buduun la wax nit ak jinne maa bind ngir ñi jaamu ma gannaaw jaamu yàlla mënut a ñàkk kon nañu jiital xam buñ jiitalee xam moo ra boo léegi kenn du ñu yedd du ñu yedd adduna waaye nag du ñu yedd ëllëg yawmal xiyaam ndax Serigne Touba de mi nga xamante ne tey jii ñëpp ñu ngi bëgg doon ay murit tey Sénégal laa barke laa ilaha illallah koo gis mu ngi bëgg nekk murit mais pourtant njëlbeen woote Serigne Touba tey buñ la nee murit nga maanaam da ngay laqatu ba tey kon fuñ tolluwaay yàlla yàlla tey jamono rek tey am na foo toog boo ne man yàlla yàlla laa rek xoolal gars yi dañuy tiit. yàlla yàlla mooy yàlla yàlla mais sëñ Tuubaa lu mu wax dafa leer minnallaahi illallaahi ayna muridullaahi ci yàlla laay jógee ci yàlla laay delloo anaku nag ma dem ci yàlla te kenn ku ci nekk leer na la xëyoo xëy rek maanaam wàcc ci kaw suuf mais am nga foo jaar am nga foo jaar ba ñëw wàcc ci kaw suuf nekk liir di màgg ba xëy ñu ne la papa ma la ñi lay wax yaay nga toogaat ba mu yàgg liir ge naat ci yow mu lay woowe papa mu lay woowee yaay kon war ngaa lijjanti yow sama waa ji yow est-ce que yow yaa amal yow ki nga xamante ne tey moo jaar ci yow kenn ku ci nekk war nga toog maanaam posé foofu sa question sa bopp maanaam yow lan moo tax nga wàcc daara duniya lan moo la def nit lan moo la def nit boo léegee boo fi jógee lan ngay doon lan la ndax yàlla lu mu bind ci mbindaa fan bari na lool lu tax mu xëy seppi la ci def la doomu aadama war ngaa lijjanti loolu lan moo waral loolu loolu ko xamut yàlla munoo ko xam ki xamut yàlla billaahi wallaahi wa tallaahi sa dund bi xamoo fu mu tàmbalee waaye xamoo fu mu yemi waaye na bàyyi gay la mu joxe mooy pour jaam ñi maanaam dëppaat delloo ci seen borom waaye fan la jaar nag ndax kenn ku ci nekk leer na la ba nga jóg ci at di nga ñëw ci àdduna ci ndey ak bàyyi nga jaar te buntu bi nga jaar booy delloo ci yàlla munoo jaara ci buntu boobu noonu léegi booy delloo ci yàlla fan ngay jaar lan mooy dellu est-ce que jëmm ji mooy delloo comme niñ koy waxee delloo déedéet kon lay delloo ci yàlla mooy nit nit ak jëmmam nag du ñu benn nit moo ne mes ci biir jëmm ji moo tax ñu ne la ba yàlla sunu borom di wax ar sibara bokkum boo nu yëpp ñu xaaloo ballaa boobu jëmm amagul te boobu nit mu ngi jaamu yàlla te wàccugul ci jëmm kon moo tax ñu ne la yàlla saayir la waaye nag baatin la waaye lan mooy saayir yàlla mooy jëmm ji mooy jëmm Muhammad miim xadam dell miim dell mooy jëmm Muhammad waaye bu ñu nee baatin yàlla mooy ruuj bi nga xamat na tey mooy yëngal jëmm ji te kenn ku ci nekk leer na la wër na la ruugi tey bu xëyoon gën a jëmm ji néew bi la ñuy wax kon lay gis yow lan la lay dëgg ci yow lan la lay jàpp ci yow lan la lay dox ci yow lan la kon loolu mooy nit kon kooku moom moo war a fexe xam nu mu àndeek jëmm ji balaa ruug yi moom di tàqali koog jëmm ji kon loolu waral nit di jaayante ne aslantu nafsi aslantu nafsi nag mooy lan mooy maa ngi jëbal yàlla sama bakkan waaye ko jëbal yàlla sa bakkan lan nga dese desetoo dara ku jox sa bop yalla nak amu do am lenen lu yalla yalla rek ngay am waye nak lolu yombul ci ki nga xamante manam paregul dedet déedéet nga pare ci aduna aduna buñ ko waxe nak mooy bëgg-bëgg yi nga xamante manam sa bakkan moko mom mo wara bo ñëw ci yalla bala bala ñuy ñu lay duleel ci sa ndab foog ñu ras ko ba mu set waye ndab bi lan la nak moy xol bi moo tax ñu ne sunu borom ne yow ma laa foo maalun wala banuna illa man xattallaahi bi xal bi sallim xal bi sallim boobu muy xooy mooy xool bu set waaye xool bu tilimee ana ana lu koy setal tey doomu aadama bu muy judd nekk liir xool bu set la àndaale kon lan moo tilimal xool bi ci diggante bi kon kon li ko tilimal mooy dafa gis leneen lu dut yàlla dafa yëg leneen lu dut yàlla dafa xam leneen lu wuteeg yàlla te yàlla rek moo fi ne yàlla rek moo fi ne léegi naka la fi nekkee nag kon loolu moo waral nit ñëw jaayante te jëmm yàlla rek a tax julli lu mu baax baax woor yi lu mu baax baax génne asaka yi lu mu baax baax dafa am li nga xamante mooy baas bi mooy xamante kan ngay xamanteel mooy sa borom fan nga koy xamee nag nit ku yàlla bu mel na ne Cheikhuna Cheikh Mouhamad Alamin Gueye ku yàlla gërëm la ku yàlla gërëm ci boppam la moo tax ñu ko nangul yépp maanaam jël na leeru laa ilaha illallah def ko ci ñoom moo tax mu nekk yërmande yàlla ci kaw suuf waaye yërmande yàlla nag am na lu ko gën waaye boo ko liggéeyee boo ko liggéeyee maanaam di nga am ngërmande sunu borom ndax bari na jaam yoo xam ne yàlla nañu yàlla yërëm yàlla nañu yàlla yërëm te jëggal ñu dégg la waaye yàlla nañu yàlla gërëm moo ëpp doole yàlla nañu yàlla yërëm te Cheikhuna Cheikh Mouhamadou Alamin Gueye dafa liggéeyal yàlla. ci nitu yàlla ba yàlla gërëm ko ci nitu yàlla boobee ba mu mujjee doon moom nitu yàlla nag comme nitu yàlla bi nga xamante ne moo ko gërëm kon bari na ñi nga xamante ne tey ji ñu ngi dund ci barke Cheikhuna Cheikh Mouhamad Alamine Gueye mbooloo mi fi ne tey barke laa ilaha illallah kenn ku ne Cheikh Mouhamad Alamine Gueye xamal na la defal na la kon la mu yor ñëpp dañ cee xaj moo waral jamono ju ne mu muy samp ay tant ngir di yee jaamu yàlla yi xamal ne kat li ngeen di wuti Touba mala Tiwaawoon mala Makka non mu ngi fii ci senegal rawatina yëmbal kon nag ku ñàkk ki ñaan la ndax ku la iñaanee du indi xewali ne la kaay xewlu ku la yéene dee du la jox nga lekk ba suur déedéet ku la yéenee nga réer du la yee ci yàlla déedéet kon Cheikh Mouhamadou Lamine Gueye gàcce ngalaama barke laa ilaha illallah lu mu am mun koy bokk ak waa yëmbal kon nañu nangul yàlla ndogal bi nga xamante wàcce na ko ci jëmmam ndax léegi ba ilaa yawmal qiyaama maanaam day wéy li ma yàgg di wax maanaam képp ki nga xamante bañ nga leeru laa ilaha illallah di nga jur doomu nangu ko te munoo ci dara di nga am set mu nangu leeru laa ilaha illallah te dina ko dund te doo ko fekkee kon nag ngal ngay doomu aadama yàlla bind la moom la amal la te amee la kon lu la war fexeel nga xam sa borom la jiitu dee di ñëw kep ki nga xamantene ne jaayante ak nitu yalla mo xamal la yalla moy waccio nga ak sa borom lu taxone yalla bind la wàcce la daara def nga ko ba mu mot seuk lu ci dess nak nga bàyyi yalla ak sa bop lu munta ñàkk jogal xam yalla bo julle mu bax bo woré mu bax bo gene asaka mu bax bo teddon di nelaw sax mu bax mais lolu moy ngor yalla mi la munon def garab nga taxaw do fa jog defulako mën na la def fas defu la ko mën na la def mbaam defu la ko mun na def la yeneen ak yeneen yoo xamante ne ñu ngi fii te boo amee xel nga war a fikkur ci loolu yépp ay mbindaa fon benn bu ne mu ngi dund te ruuxu moo koy dundal kon lu tax su ruuxu gën a kawee ruu yépp mooy jëmm Muhammad bi bile yàlla sunu borom solo kon fexe jëmu jooju boo ëllëgee nga bañ koo ñàkk ajjana bu gën a kawe barke laa ilaha illallah mënul gën a kawe muhammad mim hadam del mim del waaye teraanga yëpp na yàlla sunu borom mu ngi koy fayee ci jëmm muhammad yooje kon kan mooy muhammad kan moy muhammad ibn abdallah ak muhammadu rasulillahi kon ñaar ñooñee mënuñu ñu a and déedéet foo ñu and muhammad ibn abdallah ak muhammadu rasulillahi non ñoom ñaar musuñu teqali ko abadan abidin waaye nag lu ci am solo fexeel nga xam makaama bi naka la demee boo xamee naka la demee non di mucc waaye nag di nga dox bay muccal ñeneen jaam yoo xam ne dañoo naroon a texee di billahi lazi la ilaha illa allah ndax Cheikh Mouhamad Lamine Gueye dafa mucc ci yàlla bay mucc laat yeneen ruu ci yàlla ndax ki am looy dundee ba sa njaboot yëpp xàcc ba noppi nga investir ci réew mi dafa ubbi ay usine jaamu yàlla ji ci liggéey eh nañu dax ci loolu am na koo xamante am na lu muy dundee de ak njabootam lu ñu dundee mais mënul ubbi usine mënul ubbi entreprise pour yeneen jaamu yàlla liggéey ci déedéet Cheikh Mouhamad Lamine Gueye dafa investir ci yàlla billahi wallahi watallahi kon nag jaam ñi wuy si leen woote yàlla ci Cheikh Mouhamad lamin Gueye woowu leen ci askanam woowu leen ci boppam ci yàlla la leen woow kon képp ku ñëw ci moom ren ba déewul joxu la yàlla dem ku baax ñi fi ñëw yépp ilaha illallah la leen jox te kenn ku ci nekk bu mu la ilaha illallah dem nga ba xam ne dara fi ilaha illallah kon su boobaa dootoo mooy yàlla ci dara da ngay jaamu yàlla ci lépp da ngay jaamu yàlla ci ñépp kon su boobaa ngërmande yàlla dalay ñee saahiran wa baatinatan kon nag wax dëgg yàlla yéene la joo xamante dañ ko amon te yéene olof yi dañuy faral yàgg naa dugal borom fu nekk waaye sunu yéenee mooy jàmm yàlla yi la ñuy wax maanaam ñi déggoo ko ngir jëmmi sunu borom rek a tax ñu xam ne kat ñun waxuñu waaye waxande bi ñuy def wax lañu waaye la ñuy wax yépp ci dara darajey Seexuna Cheikh Mouhamad Al Amin Gueye la ñuy waxee yàlla bu yaakaaram tas si yàlla yàlla bu yaakaaram tas si yàlla yàlla bu yaakaaram tas si yàlla lépp lu mu yéene ci yàlla yàlla na yàlla defal ko lu kawee njortam yéene bu moom ci jaam ñi ñu na yàlla jiit jaam ñi ci boppam moom Cheikh Mouhamad Al Amin Gueye la mu yéene ci jaam ñi yàlla na ko ci borom bi defal lu kawee njortam ci doole laa ilaha illallah bëggul lu dul jaamu yàlla yi jub bëggul lu dul jaamu yàlla yi texe bëggul lu dul bëggul lu dul jaamu yàlla yi am jàmm kon nag ñu ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu